loo nekk. sant Cheikhul Khadim. Hmm. fii nga fii nga sant Cheikhul Khadim daal xaw ma fan sant waaye maa <laughs> maa tay maa la def noonu waa instant bi def ni ba baax ni ah ñëw soirée Sidi Diop yow da ngaa xale bi wala da rëbb si. non rëbb siw ma xam nga ñun ay ay méloman lañ et ni ay animateur lañ ay présentateur lañ euh, Sidi Diop xewle daan ñuy woo ci bësam ñu ñëw jàppale ko xam nga ni mbooloo mooy doole et voilà ku ñu xañ sa bës tamit Sidi xañuñu bësam loolu dong la voilà ñu ñëw jàppale ko Sénégal jëm kanam waaw waaw ah, noonu nga ko defee noonu moo ma neex ah, tey ñu gis ne nag comme ni nga ko waxee léegi a ah, Sidi Diop def na li nga xamante ne mooy geste bu rëy mhm. def bësam bi daal di ñu ñu daal di ñëw mhm. gis nañu ki nga xamante ne tey noonu nga gisee tey boycott bi nga xamante ne tey xam nga nit ku nekk ak li nga bëgg am am nit ku nekk ak fi nga bëgg a toll xëy na peut-être Sidi moo soxla presse bi woo presse bi ñu daal di ñëw teewal ko ci soirée am ki nga xamante ne nag moo di waale woowuñu ñun ñu toog jàpp suñu njàmbur fu laa da xaran voilà Sénégal la ñu nekk dama laa wax dama lay wax lu leer ku fi bëgg am buzz wala ku fi bëgg dem fenn fi éviter presse en ligne bi man la sa tous du baax voilà jeex na. Ah, tey tey ba nga xamee ne Wally def na loolu tey ban yëg-yëg ngeen am yéen ñi nga xamante ne ñooy jeune reporter yi. waaw xanaa am lu ñu metti parce que aussi koo xamante ne ñun ko gunge bi muy commencé terrain ak presse ba tey fii mu egg si tey ah mu am soirée mbedd ñu ah dañuy jàpp ne loolu la yàlla dogal on s'en fout en tout cas ñu ñu war am ñu ngi koy am sant yàlla comme si di woor nañu c'est le golden boy nañu tey nga gis reporter bu fecc ba génn télé barke Cheikhul Khadim <laughs> kon si toj mhm. <laughs> waaw Abou reporter yi gunge ko si euh, presse en ligne bi gunge nga xamante ne fii la mu defee ni mu defee waaw xam nga peut être moom lool la moom la engagé xëy na peut moom moo jël décision boobu xay na peut être tamit staffam la mais lu ci mën di am rek ñun ñu ngi toog di déglu dinañu soxla yàggul dara incha allah te bu ñu soxlaa bu boobaa xam na fi ñuy fekk waaw incha allahu rabbi <laughs> sama xarit baa ngi dañuy foo rek uh-huh. ah mais maa ngi leen di nuyu di leen bégee bu baax di leen jaajëfal en uh-huh. ah, presse bi yëpp maa leen di jaajëfal di leen nuyu xama man yéen awma seen fay uh-huh. gis naa ni chaque samedi yéen ngi fi ñëw di jàpp ci liggéey bi te amu ci kenn koo xam ni Sidy mës nga mës na la jox dara wala dara da ngeen koy def rek te tax donc man je vous maa ngi leen di remercier bu a baax mais tey nga nga xewle presse bi yëpp daal di ñëw nekk ci naaw Sidy Diop lan moo waral loolu waaw mais dara mooy li ma la rek mooy peut-être maa ngi jégalu de grand peut-être xama ñoom ñoo ciy jàpp te yàlla tax rek man defaluma leen dara. Mhm. aussi lii daf may may jom rek pour ma gën a gën a dolli liggéey ndax yéen waruma leen rusloo. Mhm. suma ay frère ngeen kii suma sœur la donc li ci def dañ koy yeggalee ci biir. Mhm. ma dugg yëngal. mu jeex waaw mais dara Wally c'est mon frère bu baax a baax di ko féliciter ndaxte Sénégal dañ ko namoon àdduna dañ ko namoon. ah léegi laa toog suma salon seetaan na affaire bi spectacle bi entrée bi mu rafet trop yàlla na ko yàlla defal jàmm te lafal ko cat ah, la waali mën na liggéey te du ma yàqal dara maa ngi liggéey te yàqalu ma ko dara mhm. ñi ñooy wax rek sama frère te maa ngi koy béggee moom frère di ko wax bonne continuation gis na liggéey rek liggéey rek liggéey rek tey nag sama papa daf maa seet si sama xarit muy Badara Gadaga waaw dama bëgg ñu dem foofu yabanaya naye yabanaya lool